waaleykum salaam. mën nga ñu baaxee turbi bi. Euh, man Gallo Thiam laa tudd euh, juddoo Medina euh, di secrétaire général de la CATB mouvement politique bi nga xam ne ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba moo ko créé te muy jàppale le président de la République maanaam Benno Bokk Yaakaar à d'accord bu ñu doon wax. CATB lan mooy origine bi. waaw CATB origine bi. Euh, Cheikh Ba. yàlla dafa def mu am ndombu tànk ci état bi mu amee ndombu tànk ci état yàlla def mu en 2014 euh, président de la république recevoir ko. na ko day man day dama bëggoon nga jàppale ma au niveau de la Médina ndax dégg nañ li baax nañ koy def te tamit dégg nañ ni population yi tamit jeunes yi surtout ak femmes yi bëgg nañ la en 2014 mu ñëw jàppale Benno Bokk Yaakaar rawatina euh, Seydou Gueye ak ay ñooñam yi nga xam ne nekkoon APR. bi mu leen dimbalee daal nekkoon na ndimbal goo xamee ni euh, tuutiwul yàlla dox tuuti yàlla def tuuti mbir yi dox ñu def ko directeur général des impôts alors bi ñu ko defee DG des impôts euh, mu nekk nag koo xamee ni comme état daf la jox ndomb tànk bu rëy war nga mën a indi sa xam-xam ci réew mi yàlla def euh, en 2017 mu soutenir le président Macky Sall président Macky Sall yàlla may ko ndam foofu après ci le mars mu ne léegi man daal defe naa ni war naa mën a créer benn mouvement politique bi mu créer mouvement politique boobu ñu def ko euh, à la place du souvenir Seydou Gueye en tant que secrétaire général moom moo ñu woon présider boobu fekk na loolu laata muy am doon na ma jël man Oumar Sow Ibou Diagne ak Diouf Raffet ñuy def réunion kër Omar Sow loolu nag la xalaatee ba mën a def loolu nga xamee ni moom laa junj léegi euh, à la place du souvenir. li may dugal foofu benn question avant nga continuer. Mm-hmm. il n'était pas satisfait de, du travail. c'est pour cela qu'il s'est investi ou il est venu pour leur euh, prêter main forte. dafa doon ñëw pour dimbali. le président Macky Sall parce que nag Cheikh Ba ku ko xam xam ni dafa fonk trop euh, kóllëre donc dafa doon ñëw pour dimbali le camp du président Macky Sall muy benn Bokk Yaakaar et ce qu'il faut préciser Cheikh Ba effectivement nekkul militant de l'APR mouvement la am boo xam ne de soutien au camp président euh, Macky Sall. oui. accord léegi euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Mm. du social à la politique. Euh, ni mu convertir wu en politique est ce que c' était facile pour ngeen convaincre ko ba mu bàyyi ba mu dugg ci champ politique bi nga xam ne ñi lay gën a njëkkee ñoo lay def ay coups bas. waaw xam nga euh, Cheikh Ba ni mu duggee ci politique. moom du politicien du politicien mais yàgg na yëngu ci wàllum politique. ndax euh, ñi ngi fàttaliku tuuti rek en quatre-vingt-seize mosoon na nekk euh, président de benn association boo xam ne euh, ñu ngi ko doon wax Médina 2000 booba ñu ngi doon soutenir le président Malick Sy Souris. ci euh, élection municipale en 96 donc moom dugginam politique lu ko bett la ndax moom ku ko xam xam ni moom il est social léegi social boobu euh, wax nañ ko waxaat ko ab bas âge la ko topp euh, mën naa jéggi def jéggi lu bari ba mu ko tàmbalee ca école ba ndax da daan partager ay fourniture am ak euh, ay promotionnaire waaye li ko gën a ubbil bunt bi mooy ba mu nekkee di dimbali quartier bi ñuy wax Jekko te muy quartier bi nga xam ne fa la juddoo seen kër nekk fa ndax su koor jataan dafa daan jël depuis 2015 di bokk alalam ak waa Jekko ba affaire bi di law waa jàppoo dégg ko mu xëcc leen ba affaire bi di law quartier di yëpp di ko réclamer ay Santhiaba ay Thieling ay Au euh, Revoir ay abattoir euh, di ko dégg mu ne léegi comme noonu la woowal leen ma représentant yëpp fu ñu nekk ci quartier bu ne ñu ñëw ñu représenté leen léegi bi ñu ñëwee si la ñu defar benn mouvement boo xamee ni ñi ko yore koor su jotee ñu woo leen ñoom ñëpp ñu ànd di jël ay denrées alimentaire di ko yóbbu seen quartier di ko yóbbu seen quartier pendant trois ans nit ñi di dégg waa Ngaraaf ñuy wax mais kan mooy Cheikh Ba bi ñuy may lii waa euh, euh, Sanca Ba di ko wax waa waa Njaacaar di ko wax def na ko presque trois ans la soog a nag dem vers les gens boobu xalaat sam xalaatul woon sax du di wàllum politique bi mu demee foofu commencé ko di di jëflanteeg nit ñi nit ñi nag tur turam di law aywa Cheikh Ba yaa baax Cheikh Ba yaa baax Cheikh Ba yaa baax Ba li ma wax sànq ci en 2017 ba mu créé euh, mouvement de soutien boobu c'était facile que chaque quartier répondre à son appel parce que ji na leen loo xamee ni su soxlaa ñooñu dañu war a ñëw ba mu soxlaa nag waa quartier yooyu yëpp ñëw looloo tax Cheikh Ba ci wàllum politique lii yëpp di gis ci engouement populaire bi muy am loolu nit ñi war nañ ko mën a xalaat. Cheikh Ba est prétendant la maire commune de la Médina il va se ranger derrière pour qu'il se xam nga question bu neex a tontu la ndax question boobu dafa am yoon woo xam ni Cheikh Ba ak mouvement am CATB dox nañ ko ndax junj naa la en 2014 coalition benn bokk yaakaar nu mu defaan ñu gañe ko élection yi nga xam ni moom la ñu waxoon référendum. yàlla def na ni boobu Cheikh Ba ñëwagul ak mouvement mais en les images sont là elles parlent d'elles-mêmes bi mu ñëwee dañu gis benn engouement bu am solo en li am Médina bi fi président Macky sàll ñëwee kenn mënul woon xam ni loolu Cheikh Ba doon na ko indi ay la yëwén nag mu mënuñu wax mu benn Bokk Yaakaar présidentielle 2019 te kenn bu wax Cheikh Ba ak mouvement ndax meeting bi ñu fi def ci de cloture mitin de clôture bi ñu fi def si Blaise foo sànni mbattu mu takk ba Sénégal àddina bi yépp gis ko. bon ces mouvements de foule ne sont pas des pour euh, pour l'étiqueter cet euh, triomphe de Benno Bokk Yaakaar. non euh, xam nga ki daan am élection 5000 voix ñëw 2019 am mille fois am na lu tax de 5000 à 15000 avec l'avènement de la CATB avec Cheikh Ba nit ñi gis nañu te maa ngi ñëw si sa question bi. xam nga dafa am jamono joo xame ni benn Bokk Yaakaar saa yu génnoon doon def campagne boobu Cheikh Ba nekk fi ak ay mouvement le camp adverse muy camp le maire Bamba Fall daan nañ def def goo xame ni daawuñu ñeme sax génn mais bi camp wu Cheikh ñëwee boobu la lu bari am ndax su booba camp wu Benno Bokk Yaakaar da daan xaar CATB ak Cheikh Ba di génn di def campagne ñoom mën a ànd ak moom pour fondre seen foule ci fulu CATB. kon l'avenir de du CATB dafa changer le. ah oui ah oui dafa gis nga gis nga présence su Cheikh Ba si l'arène politique locale au niveau de la Médina. les observateurs les gens de l'APR ak tous les mouvements politiques les partis politiques ñëpp gis nañ ni li am avec CATB amul fenn man je défie quiconque ñëw CATB taxaw ci trottoir bële sa parti taxaw ci trottoir bële wala sa mouvement taxaw ci trottoir bële ñu jàkkaarloo ne waa Medina fal leen kenn fii tey jii la ñuy fal CATB lay dem gis nga nit wax sa mbaaxu nit dara aayul moi été man def naa APR 2009 ba 2015 maa ngi woon APR ba tey jii maa ngi avec la bi kon boo man war naa la mën a jox ay information yoo xam ne nga téye ko xam ni c'est des informations béton mais le cas de Seydou Gueye nee nañu politique bi nga xam ne Cheikh Ba def na ko pour débouler leneen ndax yow ku mel ni yow ak euh, Omar Sow ñu ngi nekkoon au côté du ministre Seydou Gueye ay chèque la leen jox pour jëlee leen fa indi ci boppam kooku amul mën naa la seedeel ni amul ndax maa ngi jàkkarloo àddina di wax ak ñoom Cheikh Ba c'est il est d'abord c'est un frère man Cheikh Ba maa ngi ko rencontré 1988 mu nekk frère bu frère u El bi mu nekkee frère u El jaba Diaba Diaba gagné Séoul ñuy feeteel Diaba waa Jekko mu indaale Cheikh Ba photo yaa ngi fi en 1988 Cheikh Ba sax defe naa ni mi ngi euh, vidéo boobu El Hadj Daba plutôt. donc nit ñi nañu wax la ñu xam gis nga Cheikh suñu diggante ak Cheikh Ba moom xam na ni loolu amul loolu moom maa ko mën a weddi ba mu tett lenn moo am on ne se woon suñu bopp ci APR. à cause de benn affaire rek parce que man Oumar Sow bi ngeen bi nga wax ne ñun mën nañu wax ne ay membres fondateurs lañu APR Médina dëgg la am na ñuy fa jiitu waaye ñun mën nañu wax membre fondateur la man mii am naa. benn cellule boo xamee ni installé par Ibrahima Kamara su ma waxee Ibrahima Kamara waa APR xam nañ ko Seydou Gueye xam nañ ko réunion yi ñu daan tenir si Seydou si si si APR deux réunions je les man Seydou Gueye ak Ibrahima Kamara boobu sama kër benn xarit à la rue 10 foofu may fréquenté daan naa am benn moment boo xamee ni man maa daan àbb monsieur Ndiaye rahmatullahi alayhi Alioune Ndiaye directeur école Matar Diop qui n'est plus qui a été effacé de l'histoire maa daan àbb classe ñu abal ma classe ma jël waa APR yi ak Seydou Gueye ñu toog foofu kon boobu su fekkee ni dañu ne man dañ ma jox xaalis lu fi yàlla tere ma téye xaalis. ñoo tuuti ci actualité. gis nañu benn rencontre bi fi amoon benn manifestation. waaw euh, ba après bi maire Médina bi génnee euh, traité leen de toutes les noms d'oiseaux ngeen def benn réplique est-ce que jotoon jaroon na am benn réplique bu mel noonu wala combat bi nga xam ne interposé la. Euh, gisoon nga ne jaroon na am. waaw mais xam nga nous sommes. en politique et j'ai l'habitude de dire fii ñu toll nii qui gagne la bataille de la com gagne tout munuma munuma munuma xalaat munuma jàpp ni ñoom invité nañ fi Wally Seck Wally defal leen li leen defal dégguñ ñun ñu wax dara ñun ñu invité Wally Seck mu am benn effet de bëm boo xamee ni ñépp a koy coow seeni ay délégués instrumentalisés qu'ils ont été dem si lieu yooyu nga xamee ni ñun dañ fa daan dañ fa defoon euh, euh, concert bi ñoom ñu tëni foofu bëgguñu boo boole askan bi la ñu réunir nag ñun suñu biir ne ñoom comme ñoom dañu def loolu ñun aussi nañu tenir un point de presse point de presse bi ñuy war a tenir ñëpp xam ne ni ça fait vraiment benn buzz boo xamee ni nit ñi rétablir nañu les faits nous ne sommes pas des mais je me rappelle que bi ñu ko waxee wax gi fay na. Euh, gis nañ nga def benn discours incendiaire keroog lan moo la galvaniser ba nga indi ton boobu nga xam ne ñu bari xamuñ ko woon ci yow. oui mais naa nag trop c'est trop. en fait euh, xam nga moi euh, dama par nature je suis très cool mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité en toute objectivité il fallait que man ma jël sur moi la responsabilité Cheikh Bara ne peut pas dire yenn choses mënu ko wax ndax yaram tegginam am na lu bari loo xam ne du ko wax waaye nag terrain politique bu Médina moo nekk foo xamee ni il faut dire les choses d'une manière ferme avec rigueur parce que man mënu ma comprendre aujourd'hui ki nga xamee ni tey jii moom la ñu jàkkaar lool mais à chaque fois su génnee dafay xajamal suñu ay jëf te man je pense que ce n'est pas comme ça oui la politique bu njëkk ba loolu la woon mais léegi la politique ça se fait autrement moo tax ce jour la je parlais avec le cœur ce jour-là j'étais tellement inspiré à telle enseigne que li ma wax dafa dugg ci biir nit ñi ba fu ma romb fi ma dinaa dañ may wax ni merci ci ni nga waxee metti nañ te nag lépp nag dañ ko teg ci yoon man du ma waaye na am na loo xam ne suñ su war a jàkkaarloo ñun dinañ si jàkkaarloo wax ak ñoom ndax fii dañu dégg le maire saa yu waxee na fii ay tàppet ngeen saa yu waxee ay góor jigéen fi ne waxee du wax ay golo mais la Médina ay nit ñu baax a fi nekk ñun dey suñu camp nit ñu civilisé ñoo fa nekk nit ñoo xam ne tamit aussi xam ne lan mooy seen taxawaay wala lan moo war a doon seen taxawaay ci biir Médina ñun suñu taxawaay ci biir Médina mooy wane yar wane teggi wane bëgg Médina waaye nag teg ko lépp si ful ak fayda ndax ñun loolu leen ñu xamee loolu leen ñu nàmp te loolu leen ñuy doxee guddi ak bëccëg. loolu lañ la yaree loolu la ñuy nàmp loolu ngeen di doxee guddi ak bëccëg. ñu ngi bàyyi xel. téléspectateurs yi di wax ni yéen ngi seen seetaan seen émission bi di focus local ñu dalal Gallo Thiam mais galo Bamba Fall du guy gu daanu de ay reenam dafa sax ci Dega ci Médina pavage des rues jardin d'enfants Mame Abdou euh, ak j'en passe j'en ay réalisation yoo xam ne foo lu gis ko beneen bi dafa yàgg ci politique bépp amee Diéry ñuy téye ci loxoom Birame Sassoum Sy jusqu'à nos jours euh, pour développer na ko fii ci maire commune Médina bi il faut que ngeen am doole ju bari. waaw eh, kenn sous-estimé wul Bamba Fall sa adversaire waxuma sax Bamba Fall mais sa tout adversaire adversaire politique bu ne nit war ko war mais je pense que le maire Bamba Fall mais moom moo def li tax nit ñi. am fit taxaw na ko delloo ñu suñu Médina delloo ñu suñu Médina boobu mooy nit dangay am vision nit da ngay am xam-xam mais le maire wax naa ko l'autre jour ñun à chaque fois ñu teg benn action moom il est dans la réaction te nag ñun loolu daf ñu wax daf ñu won ay jàngir oui il a ay pavage loo xamee ni mairie de ville moo ko teg ay tali mairie de ville moo ko teg parce que c'est des projets yoo xam ne ni qui étaient euh, euh, euh, si suuf waaye yooyu yëpp muy def jàpp nañu ni bu loo xam ne ni maire def na ko xam nga xam nga tey jii soo xoolee bu baax Bamba Fall ak nu muy doxalee dans l'acte social man mi dëkk Médina lépp lu muy joxe ci Médina man war naa ci bokk. comment ça que. ndax nécessité lañ koy jox. man doomu Médina laa dafa am fu ma bëgg jëm. man doomu Médina laa. am naa ñoo xamee ni ñoo bokk CATB waxuma ne dañu am c'est des nécessités waaye moom képp koo xamee ni bokkuloo ci moom du la jox waaw. léegi man question bi may laaj. Hmm. question bi may laaj est-ce que li mairie bi di joxe mu jóge ci Bamba Fall est-ce que ay militants rek ñoo ko war a jël déedéet. contrairement à Cheikh Ba. qui n'est pas maire la ngaa dugg foofu man parce que Bamba Fall man jot naa ci eddam en tant que imam. Mhm. Euh, korite tabaski ak tamxarit ñu am loo xam ne jox nañ ma ko venant de Bamba Fall euh, mi ngi jël ay agent bi leen may ñu def can ñeneen ñi mu leen di su dee jigéen la mu jàppale leen jël ay jeunes yoo xam ne ñi ngi ci mbedd ni di xool occupation voirie bi euh, ak. Euh, parking payant yi nga xam ne mi ngi ci fii di Médina defe naa ne loolu kenn du ko jiix quand même. waaw mooy li ma wax yéen da ngeen les imams dañu bokk ci clientèle politique am les imams dañu bokk ci clientèle politique am les les les chefs de quartier ñu si bari dañu bokk ci clientèle politique am tu as vu. des conseillers municipaux qu'ils nomment euh, délégués de délégués de quartier loo xam ne ni wax daf ko interdire ñoo xam ne ni dañuy joxe ay certificat de domicile pour am certificat de résidence tu tu vois am na ay délégués de quartier yoo xam ne ni bokkuñu ak moom philosophie. ba ñoom dañ ko dañ dañ ko gedd mais ñoom traitement bi muy traité ak nitam bokkul ak ñi nga xamee ni ñoom la fi loi wala ay arrêté teg li nga bëgg li nga war a dégg di wala li waa Médina war a dégg lépp loo xamee ni si social le maire mi koy jël di ko joxe joxu ko koo xamee ni bokkul feneen ku astafurlah lépp lu muy joxe ki bokk ci moom lay jox mais ñi bokkul ci moom joxewu leen contrairement à Cheikh Ba. contrairement à Cheikh Ba monsieur Gallo temps bi mi ñuy xocc dañu bëggoon dugg ci benn benn mbir boo xam ne monsieur le ministre génn na mais kuy sànni ay pic ki nga xam ni mooy Cheikh Ba bi nga déggee euh, déclaration boobu euh, nan nga ko jàngatee ak lan nga yëg. parfois j'ai j'ai mal à quand quand j'écoute. Euh, notre ami et frère, le ministre Seydou Gueye. Oui, mal. Parce que euh, am na jamono joo xamee ni euh, Cheikh Ba su fi nekkul woon mu ñaaw dëgg la dinaa faral di dégg muy wax ni Cheikh Ba bokkul ci APR loolu dëgg la dinaa fa dinaay faral muy dégg ni benn bokk yaakaar euh, ay parti la fàtte cité mouvement politique yi nga xam ne dañ fi nekk ànd ak moom jàppale ko jàppale camp wu président ba président gagné dinaay faral muy xarab Cheikh Ba ci façon boo xamee ni ku dégg politique wala yàgg politique di nga xam ni loolu mi ngi koy xarab dama joxe rek benn benn firni dama ne Cheikh Ba man témoin te témoin oculaire en 2014 bi muy dimbali le camp du Benno Bokk Yaakaar man la gis. man maa organiser rencontre bi muy am ak ak Seydou Gueye ba lim ko war a jàppale mu jàppale ko gis nga deux mille dix neuf bii parti bu nekk soxla woon nga Cheikh Ba waaye ba ñu duggee ci langue gi la langue gi leer Cheikh Ba du noonam Cheikh Ba du noonam Cheikh Ba dafa am un contrat moral qui le lie avec le président Macky ndax lépp loo xamee ni moom mi ngi koy def ma ma nga ànd ak moom depuis bi Cheikh Ba déclaré sa candidature à la xam nañ ni ñi war a wax wax nañu ñi war a rapporter rapporter nañu ñi war a wax ni Cheikh Ba position bi mu am Médina kenn mënu ko am au niveau de la Médina nekk ci camp benn bokk yaakaar muy moom moomu Seydou Gueye gis nañ ni dafay bëgg jaxase di wax bokkul APR pour waa APR contre Cheikh Ba on est bien renseigné ñun hmm, politique xam nañ ko xam nañu politik lépp lu muy doxal. mooy jéem a freiner l'ascension de Cheikh Ba kii avec son mouvement sont devenus une réalité une réalité incontournable à la Médina dama ne dama ne mm-hmm. le président Macky Sall war na xam ni Cheikh Ba waa Médina ñoo ko bëgg le président Macky Sall war na xam ni Cheikh Ba ay ñu nekk ci yeneen parti ñoo nekk ci gannaawam même suñu bokkul CATB xam nañ ni avec Cheikh Ba ñoom dinañu mën a ànd ak moom jàppale ko parce que comme mbir yi affaire local la ñoom pare nañu pour jàppale ko. Mm-hmm. le président war na comprendre aujourd'hui mm-hmm. message bi jàll moom. enjeu bi bi mm-hmm. mooy ñàkk wóolu Cheikh Ba ba teg ko ci place. dañ koy yóbbante information boo xam ne wóor na ma ñun am na ndax dafa am loo xamee ni le vote affectif niveau de la Médina duñ ko jox koo xamee ni dem na ñaari yoon élection ñu dóor ko mu daanu le vote affectif au dañ koy jox koo xamee ni ku yaakaaru la koo xamee ni ñépp xam nañ ni moom su ko Benno Bokk Yaakaar jiitalee waa Benno Bokk Yaakaar dar ko Bamba Fall dafay dem toog dootul laal affaire maire bi. si jamais le président désigné Seydou Gueye le ministre Seydou est-ce que yéen waa CATB di nga rangé wu ci ginnaaw am discipline de parti. ñun nous ne sommes pas des gens de la paire. ñun dañuy indi suñu soutien la coalition présidentielle benn bokk yaakaar loolu nag defe na ni du ñu fa jëm que le président du def loolu mukk non question fermée. waaw di ngeen ànd ak moom jàppale ko wala waa CNCHB da ngeen di décaler bàyyi mouvance présidentielle bi dem uti lu ngeen am ngeen jëm xam nga Cheikh Ba si état la nekk Cheikh Ba. su ko président defee loola mën na dem ranger wu ci ci moom. que nag. Cheikh Ba dina jàkkaarloog ñi mu war a jàkkaarlool waa CRTB ne leen a ah, man day ngeen ko gisee jiitaluñu ma waaye mbir mi nii la su boobaa nag ñun dinañ débattre et puis dans toute ñun dañuy débattre ce n'est pas parce que Cheikh Ba dem na rek ñun ñëppay ànd ak moom fii nous ne sommes pas des de Panurge ñun dañu nekk ñoo xamee ni li ñu bëgg mooy Cheikh Ba jiite. liste Benno Bokk Yaakaar au de la Médina. lan nga wax ci focus local ak MTV. focus local dafa dafa junju turam ndax ci local yi la ñëw pour ubbi ay rubrique yoo xam ne nii ku ci nekk war nga ci mën a jàll. MTV ñu ngi leen di gërëm di leen sant yow mi nga xamee ni Seydou Diallo. yaay def lii yan na barkeel te lépp loo xamee ni ñun jàpp bëgg nañu ko mën la si jàppale insha allah dinañ si jàppale ndax nag suñu Médina bi dañ ko soxla Médina ñun loolu lañ bëgg euh, sa moom mot de fin mooy dañuy ay doomu Médina bëggal Médina lu baax yéene Médina lu baax xalaat une Médina autrement ak ñeneen ak keneen koo xam ne daf ko jiite keneen kii ñëpp jàpp na kii ñëpp jàpp kii ñëpp xam ni moom la mooy ki ñuy wax Cheikh Ba le Messi Messi parce que moom la yaakaaru yaakaaru waa Médina nekk donc li may wax di remercier képp koo xamee ni yaa ngi jël sa alal képp koo xamee ni yaa ngi topp li président Macky Sall bëgg mooy jëlaat Médina te loolu la Cheikh Ba nekk loolu la ay ñooñu Cheikh Ba nekk jëlaat loolu lañu bëgg jëlaat Médina teg ko ci loxo président te kooku kenn rek la yàlla def mu mën ko doon muy le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba je waaw euh, ñu ngi lay jërëjëfal bu baax Soxna Gallo am nañu contenté bu baax ci dalal bi mu dalal di la dox di daje beneen yoon. Médina dañ ko soxla douche publique yi ñuy toj di ko def ay magasin dañ ko soxla voirie yi bi nga xam ne mëntuñ ci dox dañ ko soxla occupation irrationnelle bi nga xam ne moom la ñu def ci suñu espace public yi dañ ko soxla lii di suñu terrain jaraaf dañ ko soxla école yi nga xam ne ñu ngi koy toj di ko def ay dépôt wala ay magasin la ñu bëgg mu dàkk la Médina. pour les Médinois di leen jox ti daje beneen yoon ak beneen invité képp ku bëgg ñu dalal la ci focus local mun nga jël numéro bii nga xam ne moo nekk ci bannière bi incha allah boo ñu woowee ñu organiser ko am ak yow benn entretien salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.